mbokki Leewtoo ñu ngi leen di nuyuwaat baax baax fii nañ daan nuyoo comme ni ngeen ko xamee Leewtoo dafay dox ci léppi làmb tey ñu ñëw fii ci benn lycée de la place monsieur Ndour dina ci ñëw ñu seeti Sitor Ndour euh, Sitor balaa ñoo dugg kan mooy Sitor Ndour. bon Sitor Ndour euh, professeur d'éducation fisique la au lycée Thierno Seydou Nourou Tall euh, Sitor Ndour arbitre international de lutte la fii ci kii Sénégal. ki taxaw sa wet gi saral la. waaw ki taxaw sama wet sama sama collègue la fii déjà sama collègue la fii ci liggéey bi prof EPS la kom man te arbitre la aussi au niveau euh, du CNG ou bien de la CCA. muy Modou mbay Sitor benn question bu gàtt rek lu la booleeg Sabago dañu naan arbitre boo xam ne Sabago lay sol rek de monsieur Mbaye moom tam ñëw dóor Sabago ngeen niroole ko mu mel ni daal da ngeen koo kii wala. waaw Zeba woo nag euh, dafa nekk dàll boo xam ne dama koy yàgg sol dafa ma neex parce que maa ngi koy wax gars yi ma ne man depuis 84 laay sol Sebago 84 ba léegi damay sol Sebago bu maa ngi def sixième may sol Sebago ba léegi dàll bu ma neex la ñi ma xam dëgg dañuy gis ne chaque année moom laay sol waaw dafa ma neex moo tax. mais da ngeen ko def exprès wala monsieur Mbaye. non Sebago moom dàll la boo xamante ni si nii bu neex a sol la loo ko booleel mu ànd ak moom moo tax xëy na peut ñu ànd ak moom depuis loolu quoi. waaw. Sitor kañ nga dugg ci arbitrage. Euh, man nag maa ngi arbitré depuis 1997 boobu étudiant la boobu ba léegi maa ngi arbitré macha allah. waaw mu mel ni euh, tàmm nañ la lool ci làmb yi surtout événement yu mag yi bu amee. waaw man nag euh, si si si yëpp la ah combat yu ndaw yee combat yu mag yi souvent dañuy wax événement yu mag yi mais événement yu ndaw yi aussi maa ngi ci seulement day taseeg événement yu mag yi ñu nekk ci rek nit ñi seetlu loolu loolu rek la mais ñu ngi ci événement yëpp ñu ngi ci événement yi parce que ñun euh, benn réyul si ñun daal maanaam pour ñun combat combat la rek yëpp a tolloo waaw parce que ça dépend ci ni ni nga koy gisee ak impact bi muy am mais amul benn bu ñuy xeeb wala benn bu ñuy teg ci kaw waaw fan yii ci Sénégal ci làmb ji riir bu doy waar am ñu ne arbitre dafa grève mu doon loo xam ne mën nañ ne dans l'histoire bëriwuñ lu ñu koy dégg bu amee tam bariwul ana lan moo indi loolu. waaw bon man nag ndax amoon na avant xaw ci dara euh, xëy na mus na am wala mu foo xam ne yëguñu ko woon parce que boo xoolee làmb ji biñ commencé def ay écrits xëy na tam yàggul mais ñi fi nekkoon xëy na mun nañ wax ne loolu am na euh, loolu nag soo gisee mu am jamono ñu toll nii. Euh, mooy vraiment lu yàgg lu ñu denc ñu dem ba sës gis danger bi ci am moo tax ñu toog fippu waaw parce que tey jii musu leen ko dégg comme ni nga ko waxee en tout cas man de bi ma nekkee arbitre ba léegi musu ñu def lu mel nii li tax ñu def ko nag vraiment dañoo sës ñun dañoo nekk ñoo xam ne dañoo bokk biir CNG loolu moo tax suñu jóg yombul woon parce que du yoon ñu nekk foofu ba pare di def leneen mais soo gisee ñu dem ba sës nag loo xam ne dañoo wax waxaat ay ati at chaque fois ñu waxaat ñu gis ne amul changement léegi li ñu yee dëgg mooy combat bi amoon arène nationale euh, te mu amoon tension yi risque yu bëri jóge ci ñun rek ñu ne ah vraiment ñun suñu bakkeen mu ngi ci xottu gerte ñu ngi toog fii di jël ay risques yu énorme te risques yu énorme yi mun na indi loo musiba ñaanuñu ko mais musiba parce que ñun ñu ci milieu boo xam ne dafa dangereux à tout moment mun nañ la gaañ Euh, amoo assurance amoo dara ñu ne ah sama waay il est temps nag ñun la ñu jëlal suñu bopp euh, ñu jël euh, suñu suñu kii suñu défense bopp parce que tamit di jël ay risques yoo xam ne te amoo dara leneen loo ci mën a jëlee vraiment jaru ko waaw. mu mel ni tudd nga wàllu assurance mais est que assurance rek moo ne ci kii li nga xam ne moom mooy préavis de grève bi. waaw non au fait du assurance rek mais assurance bi presque mooy base bi. au fait euh, soo gisee ñuy wax tey boo gisee tey jii ñu toog ba mu yàgg jël décision bi arrêté dama leen ne à travers combat boobu si lañ waxee lu bëri parce que bu tey jii bu ma la wanoon mail yi ñu envoyé CNG di leen wax ne voilà lii ak lii moo ñu naqari ay at passé wax nañ ko waxaat ko waxaat ko rencontré nañ CNG ñu ne ñu loolu ñoom mënuñu ci dara mais côté assurance ñu ngi xool mais ñu ngi xool boobu nag foog naa jàmpul ci ñoom mais dafa jàmp ci ñun ñu ngi xool ay at lañ toog di ko xool chaque année ñu ne. bon dinañ xool nan lay demee dinañ xool ñun tam dañoo war a mais encore une fois danger bi xëy na dafa nekkul ci ñoom moo tax mais ñun ñi di gis nañ danger ba ñu gis urgence bi gu wane ne dañu war a taxaw si ñun parce que tey yi chaque année bu ñu nee dinañ taxaw ci assurance bi d'ailleurs on a vu gis nañu euh, maison d'assurance bi pour ñu xool yan modalité lañ am ñu koy traîner ba mu def at déwén ñëwaat ñu defaat noonu ba mu def at ñu koy def noonu ren ñu commencé waat wax loolu rek ñun ñu sentir ne ci loolu lañu jëm parce que at yi yëpp si loolu lañ nekkoon ñu ne nag non il est temps ñu def benn break il est temps ñu won nit ñi danger bi ci am parce que tey jii man mi nekk ci biir danger bi may jël bokkul ak un président qui est euh, dans les parce que boo xoolee dañu dañuy toog assurer ñëpp mais ñu urgence bi ñu gis mooy ñële nekk ci tribune yi bu ñëwoon suñu biir dinañ gis urgence bi moo tax ñun nag ñun ñuy sentir urgence bi ñun ñoo toog di kaas loolu ñu ne dañ ñu war a mais comme ni nga ko waxee du assurance rek assurance rek loo gis dafa am risque risque bi liggéey bi ñuy def ne dafa am risque yu énorme léegi nag assurance boobu boo gisee ñu koy wax maanaam priorité la base la ci li ñuy ñaxtu lu tax arbitre Sénégal yëpp amul kenn ko ci assuré xëy na de yow yow xëy na di nga xam li xew ci yeneen dëkk yi chaque fois nga dégg arbitre bu ñu jam ar am na benn arbitre boo xam dañu luqi bëtam sax région de Diourbel mm-hmm. ainsi de suite du ma wax daal mais chaque fois nga dégg benn mbër bu ñu suspendre ndax dafa dóor arbitre dafa bëmax arbitre dafa def lii nangam arbitre dañuy recevoir ay menaces dangay nekk ci biir enceinte mbër combat chute am mm-hmm. ay mbër yu daw di jësi seen mbër saaga la ndey nee la yow dinañ la nangam taan xam nga kooku ça veut dire que risques yi ngay jël ak moom énorme foofu noonu mu la fekk mun na la jam mm-hmm. mun na xaar ba combat bi jeex mu jam la arène nationale bële soo paree combat mais pour nga ñibbi toutes les peines du monde parce que taxi. du fa taxaw dañuy ragal ñoom ñëpp heure bu combat jeexe ñun bu paree dañuy taxaw foofu obligé dox ak nit ñi parce que dara du fa taxaw risque yu énorme yooyu police du la yóbbu sa kër. léegi assurance c'est pas uniquement si moment bi enceinte bi ñuy nekk di combattre no non mais Sitor attends. da maa bëgg a wax ne police ni mu leen di jëlee ci biir bu jël amee du continuer ak yéen ba ngeen euh, nekk ci seen jàmm doog a wëññeeku. musul am police daf ñuy yóbbu ba ci vestiaire yi. après ñu ñu dem. pare na ca pare na ci. après yow boo génnee ci mbedd mi dajeeg yeneen ñeeg ñoom seen seen yoon nekku suñu paree ci loolu ñun ñooy toog ba solo suñu kii ranger suñuy bagage ñibbi ñibbi boobu parfois lu ne ngay tasel da ngay taseeg supporter ñu lay saaga ndey am na ñoo xam sax dañ lay saani mbuusu ndox yenn saa ñu ñu xool kenn saa yi sax da ngay kenn ku ñëw rek ne xaaral booy dugg leen ma yóbbaale leen wala ñun ak suñuy moyen ak amuñ fu ñu dem ñu obligé dox ba point boo xam ne mun nañ fa jëlee oto. risque yu énorme la parce que da ngay taseeg auto supporters yi da ngay taseeg supporters si yoon parce que ñoom moment boobu la ñuy préparé pour ñibbi léegi loolu insécurité boobu yow assuré woo ci en dehors de ñun ay arbitre lañ lañ ñu xam. mu mel ni kon côté payoor bi xaw naa doy waar. 35 000 francs. 52 500 maanaam ci boo jëlee 80 600 combats boo jëlee 90 10 combats loolu lañ ciy jot wala lu ko ëpp ah, parfois lu ko ëpp la bi yenn combats rek ngay jot yenn somme yi te 500000 la pour 5 léegi combat yi ma lay wax nii yëpp cinquante deux mille cinq cent léegi bi bi ci gën a garaaw mooy dans les région ci région yëpp boo fa demee mais foofu mënu ma la wax li fa xew loolu c'est extraordinaire man dama fa dem presque jooy moo ñu dese dafa am benn application bu nekk fii au euh, euh, bon euh, bu jógee fii CNG dem ci région yi parce que man maa toogoon di wax loolu di région yi di kaas naan pourquoi ñun ñu jot lii ñu jot lii ñu kaas ko ba CNG bind benn kii euh, euh, comment dire waaw benn notification comme quoi en lutte simple lutte simple arbitres yi ñoo war a jël soixante dix pour cent euh, des frais d' organisation ñun Dakar moom la ñuy appliqué biñ ko yóbboo ci région yi région yi kenn appliqué wu ko ci à l' de Fatick moo koy appliqué actuellement Fatick moom ñu ngi koy appliqué mais à l' exception de Fatick région yi amul kenn ku ko jot maanaam foofu lu leen neex la ñuy jox arbitre da ngay gis arbitre bu ñëw. yoo xam ngeen li xew ci région i seen combat yi des fois day def ñeenti fan arbitre bu ñu ñibbee 1500 la yóbbu seen kër loolu moom maa la ko wax demal nga vérifier ñeneen ñi leneen li ñuy yóbbu seen kër mille francs la boo demee Diourbel arbitre yi dañuy jóge fu sori paas dem foofu pare ñu jox leen 25000 francs ñoom 5 25000 francs 5 personnes. kenn ku ne war a am 5000. waaw léegi te loolu te dañ ciy paas dem. ci nga passe aller et retour nga passe aller retour demaat réunion comme ñun la rek passe aller retour dem réunion dem euh, désignation jour réunion désignation euh, réunion d'évaluation léegi tey jii kooku région yi ñu bind CNG xaatim ne lii lañ war a am région yi ne ñoom ñu ko respecté mais soo gisee tey jii ñu naan lii euh, règlement bi am Dakar moo am ci région yi mais cas yu mel nii moo tax pourquoi application bi am Dakar amul ci région yi région yi nee nañ duñ ko appliqué arbitre ñu ne léegi CNG bi ma ko waxee CNG CNG maintenant région yi bind région yi bind nañ ma jébal leen ko mais ba léegi région yi ba léegi respecté wuñ loolu CNG nag mi ngànk loolu mais lan moo leen tere wax ne fay leen arbitre li li nga xam ne maa wax ne nañ ko def parce que CNG moo ngànk lamb ji au Sénégal su gisee benn loo xam ne dafa anormal mais na leen ne lii na ngeen ko tegaat ci yoon mais loolu c'est pour l'intérêt de tous les arbitres léegi arbitres yooyu nekk foofu ñun ak ñoom benn lañ la comme ñëpp a ngi observé grève comme ñun lan moo tax ñu koy def parce que xam nañ ne seen intérêt moo ci nekk ñun amul dara loo xam ne dañ ko fi créer pour kuy wala pour kële dañuy wax doléance yoo xam ne ku ko dégg xam ne gis nga li may wax ni parce que euh, maa ngi dégg yeneen rumeur yi wax naan ay ñun dañ fi nekkal suñu bopp ñun arbitre internationaux yi ñooy kaas yenn affaire mémorandum bi biñ koy déposé octobre la ñu dem ak moom ñu dem ak affaire man yëpp maa ngeeg lépp maa ngeeg euh, mail yëpp yu ñu envoyé CNG amul benn yoon bu ñu mus wax benn affaire boo xam ne ci arbitre internationaux yi ñaari nit la pour ñi bëgg a nekk arbitre internationaux la ñu wax na leen CNG di jël en charge di fay quatre-vingt pour cent CNG ne non munu ko mun na fay cinquante pour cent mais cinquante pour cent bi li nga ci xamul mooy frais yi affaire day dem ba ay millions léegi ban arbitre mooy jël fii benn million di dem pour nekk ci international munuñu ko on peut pas soo leen bëggee aider ñun bi ñuy def suñu grade international ñun on a nous sommes trois internationaux au Sénégal mais ñoo fayal suñu bopp te bi may ni may wax ak yow ni ñun ñooy fay suñu timbre chaque année chaque année ñooy fay sunu timbre xam nga ni ngeen di changer seen vignette ñun ñooy changer suñu vignette mois bi le CNG wax ne dinañu fayal moitié bi bon ba léegi nag ñun fayaguñu moitié bi dañu jàpp ne xëy na ñoom dinañ fay le tout mais dinañ pay dinañ fay lépp euh, ba ni may wax ak yow ni ñun ñooy fay suñu timbre international suñu tenue arbitre yi ñun ñoo koy jënd boo demee ci dëkk bu ñu demee au niveau international ñëpp à l'exception de deux Marocains qui vivent en France ñaari Marocains yoo xam ñoo nekk France ñoom rek ñooy jënd seen timbre parce que ñoom France lañ nekk mais à l'exception de ñaar ñooñ arbitres internationaux yëpp seen fédération moo leen di jënd seen timbre ñun Sénégal chaque année bi ñu nekkee ar international depuis 1900 déggal 2011 ba léegi ñun ñooy fay suñu timbre sauf euh, bële passé lañ fay bii la nii lañ war a fay moitié bi passé lañ fay moitié bii ñu war a fay moitié mais fayaguñu moitié bi ñun CNG fay na ko ba pare ñun ñu ngi xaar ñoom ñu ngi xaar ñu fay leen suñu moitié comprendre léegi man le respect bi waroon am ci région yi su amee ñun du ñu dara parce que mun naa la waatal ne grève bi foofu la waroon commencé ñoom ñoo njëkk commencé man maa leen ne no def leen ndànk munoo def benn affaire ba pare demander ñu ci waxtaan nga bugg a commencé grève def leen ndànk ñu laajte ba xool lan lañ mun a am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 nee pour ñu arrêter li ñuy def dem arbitrer euh, après lundi ñu waxtaan euh, bi ma ko waxee nag man base laa àndal euh, dama nekk ak ay arbitre décision yëpp si ñun lay jógee musuma jël décision man kese te duma ko def sax bi ñu waxee loolu mën na ko dee non déjà ñii indi nañ seeni arbitre te man ci base laa nekk duñ fa sax dem muy indi ñu foog ne ay tension daf fi am wala ñu xalaat ne ñun dafa am lu ñu nar a créé foofu duñ fa sax dem léegi nag quant à arbitrer demain je vais voir la base ñu xool lan lañ ciy wax on a consulté la base la base des arbitres ñu baal ma français bi euh, ñu wax ak base u arbitres yi arbitres yi daal di ne euh, ñun ñoo waxoon 48 heures nañu respecté 48 heures parce que bu discussion waroon am waroon na mun a am bu yàgg bu discussion di war a am tamit mën na am ba léegi parce que bi ñu bi ñu demee en mouvement CNG ba léegi woowu ñu nee leen lii ak lee waxuñu ko lenn lañ ma wax mooy Sitor bindal li nga wax ni man ma ne bindu ma lu tax bindu ma mooy dama ko wax waxaat ko en réunion ba pare grève bi nii dama leen ko wax en réunion dama leen ne ma wax bi ma waxee baleewaat li ñu bëgg yëpp ñu ne ma defuñu ko man a kon dinañ dem en grève bi ma ko waxee am ñu ne yow conseiller wuñ la loolu ma ne ah dinañ dem grève président Alioune Sarr ne ma ne nañ tëj wax boobu de toute façon bu amee ngeen jël seen responsabilité loolu kenn jeex nous sommes assez responsables jël nañ suñu responsabilité ñoom tam nee nañ jël nañ seen responsabilité jeex na loolu amul leneen lu ñu ciy dellu. waaw man daal comme ni ma la ko waxee ñun daal li ñu wax ni duñ ci dellu ginnaaw gis nga assurance sécurité amul lu ko gën parce que encore une fois lii du suñu liggéey du suñu liggéey comme ñoom ni ñu waxee ne du seen liggéey ñun tam du suñu liggéey bureau ba loolu du fa liggéeyu kenn ñun tam arbitre lii du ci liggéeyu kenn. ñoom ñu bañ nañ ko ba naan bénévolat la bénévole nag bu ko neexee mu ne sonn naa bàyyi naa waaw léegi nag ñun ñu ngi xaar loolu ñun bañuñu ci dara du sunu liggéey fii nga ma fekk nii fii laay liggéeyee man man damay jàngale donc euh, amul benn sens ñu naan ma lii bu amee dañ leen dàq bu ñu bu ñu yeggee foofu muy noonu ñu defaat leneen parce que ñu ngi sunu liggéey ba pare voilà. le mot de la fin. le mot de la fin daal mooy. Euh, di remercier ñëpp parce que vraiment on a reçu jot nañ ay appels yu bëri ci nit ñi di ñu encourager di ñu wax ne yéen a ngi ci dëgg mais terewul ñun fi ñu war a yem rek la ñuy yem dafa am lu ñuy revendiquer muy ay droit yu légitime yu normal ci ku munta nekk kuy yëngatu bëgg nga sécurité bëgg nga jàmm jàmm nag vraiment du pare sa liggéey dem toog sa kër loolu foog naa mooy jàmm ba pare waaw ñu respecté ñu à travers li ñuy jot ñu respecté ñu à travers texte yi ñu wax texte yi bu ñu waxee lii que ça soit à Dakar comme dans les autres régions c' est valable pour tout le monde parce que c' le CNG qui CNG mooy gérer ñëpp donc règlement bi am Dakar comme ni ngeen koy waxee moom am fële nañ ko respecté moo ci yeneen région yi nañ ko respecte loolu rek la di gërëmaat ñëpp ñi ñi ñuy encouragé ñi ñuy jàppale merci beaucoup à toute la population de la lutte et au, Sénégal d'une manière générale euh, Ndeye Comba yéen ko déggandoo yi ñu suivre ci Leewtoo TV Sitor a ngi nii dégg ngeen lu mu wax arbitrage dafa bëri loo xam ne da koo laaj am ay manquement yu bëri yoo xam ne dafa nekk ci ñoom waaye yàgg nañ di ko revendiquer du tey kon mbir mi xëy na tey la ñu dégg rek bal bi ne tël kenn ku ne dégg riir bi waaye loo ci mënti dégg ñu ngi xaar fi wane di mujjee gi gëtam ñu ngi ñaan Sénégal ñëpp am jàmm ñu ngi àndal ci Moussa Fall ci caméra bi Modou Mané Ndeye Koumba Fall ak équipe Leewtoo bi yëpp ñu ngi nuyu ñëpp